maam Ndiaye deret la deret deret dafa xas ba dugg ba pare. Mhm. maam Ndiaye Savon même bu dee benn yoon lu baax nañ ko. merci ku dugg fii ne wali laa far wala maam laa far kenn du ko jugé tamit. dëgg la wala dëgg. dëgg la moom bu bu dugalee nit ne ci directam mu ne mu ne uli maam Ndiaye Savon rek la ñuy topp affaire yooyu man du ma dara parce que loolu tamit soo rek. Mhm. mais moom sama mag la du tax ñu noonu ah. Mhm. kon nañ leen bàyyi wax ji surtout comme fu mu toll nii comme fu mu toll nii comme fu mu toll nii man li li ma lay wax rek comme li moom laa lay waxaat conseil ma lay jox mooy maam jaay sa mag la sa jaabi dee ko nemmeeku comme mu nee leen bu fekkee ni sax munoo leen sekk comme li ngeen sekkoon mais jàmm joo xamante ni moom la Sénégalais yi ñëpp bëgg jaabi ngeen am jàmm jooju te ngeen moytu réseaux sociaux bi moytu uh-huh. réseau bi uh-huh. Uh-huh. ay ay seytaane rek ñoo nekk ci réseau bi yow ku nekk ci tey jii nii. jaabi may ma s'il te plaît man la tante Ndeye Thioune bi. jaabi may ma s'il te plaît waaw jaabi may ma man la tante Ndeye Thioune bi. jaabi dama bëgg a wax wali ak maam Ndiaye ñëpp laa bëgg a. jaabi waaw ñaari baat rek. jaabi wuy ma jaabi. waaw waaw may leen may leen meer bi wax may leen meer a wax il faut keroog laa i gëjoon wax ba tey may leen ma wax ñaari baat. Mm. waaw foofu la meer bi mu wax. waa kay may ma ñaari baat ñool ñool oli nsa fo jaxan kanto kuma axabang alo alo euh, oli jaabi nsa fo jaxan kanto kuma axabang d'accord problème dal waa léegi déglu ma ñaari baat oli isa amee ka yo déglu déglu déglu déglu déglu déglu nday nday ñool nday ñool tant nday bi la man la tant nday bi ñool salaamaaleykum na ngeen def maaleykum salaam maam Ndiaye mi ngi may dégg mu ngi lay dégg waay Mame Ndiaye euh, man dama ko yàgg topp. Mm-hmm. man tante Ndeye laa mais.